fexe ba képp ko nga xam ni dugg nga ci dëkk bu sell bi di Touba nga yore saw masque moo waral honorable député Abdou Lahad Seck Sadaga indiw projet duppe ko un pèlerin un masque yabal ay ndaw ñu nekk ci digg digal bi di joxe ñi nga xam ni ñu ngi soog a yegg si. waaw tey li ñu indi woon tey mooy euh, suñu kilifa di Abdou Lahad Seck Sadaga l'honorable député moom moo ñu yabaloon ngir ñu ñëw ci Serigne Bass waaye itam. wéy liggéey boo xam ne mébéto woon na ko yéene woon na ko itam def ànd ko itam ak soxna si nga xam ne mooy barakatu ak ay soxna yoo xam ne ñoom ak Abdoul Ahad Seck Sadaga ñoo dëkk bi nga xamee ne sëriñ bi joxe na ndigal euh, taalibe yi takk mas ñu gis na itam ñu bari danañ ko bëgg waaye xëy na seen doole di ko mate moom nag mu xalaatoon ko en tant que député utoon ci masque yi ci lim bu takkoo takkoo takku ak lim bi nga xam ne itam moom la ñoom soxna barakatu tam euh, ñawaloon seen bopp moom mu nekk lim takku ñu ne woon na nañu ñëw tey euh, wan ko Serigne bas waxtaan ceeg moom waaye duñ ko jël rek jëbal ko Serigne bi ndax gis nañ ne euh, jël masque yi jébbal ko Serigne bi baax na waaye ñu jëbal ko ko ba pare tam wëlbatikuwaat ànd ak ay xale yu takkukaar macha allah dugg ci dëkk bi rawatina fi nga xam ne mooy ci penc mi ñu commencé fi distribuer li nga xam ne mooy masque yi ci ngoon bi rek bi ñu ñëwee ak léegi li ñu distribuer ci ay masque matagul na ñaari junniy masque actuellement ñu ngi ak mille cinquante masques yoo xam ne léegi nii bu ñu gisee sëriñ bi ba pare itam dañuy continuer ñu def distribution bi duñ ci yem fii ba keroog ñu àgg ci màggal gi lépp loo xam ne denc nañ ko ci ay masque wala ñu mën ko utaal si ay masque dinañ dem ci ay point yu wuutee wuute ci ndigalu suñu kilifa boobu di Abdoulaye Seck Sadaga ngir jox ñi nga xam ne mooy askan wi pour ñu mën ko takk ndax gis na ne nit ñi ñu ngi ñëw mais ñu bari takkuñu ay masque mais xam nga Touba tam dafa bëri ñoom ci ville yi euh, dañuy jóge ci euh, maanaam euh, dëkku dëkku kaw yi bu ñuy ñëw daanaka sax ñu ci bëri duñ prévoir li nga xam ñu ci bëri tam seen dëkk na corona bi ni koy waxtaanee ci dëkk taax yi nekku fa ba tax ko indaale ñooñu nag ñoo tax ñu ne nañu ut masque yi doy fexe ba ku nekk ci ñi nga xam ne ñooy màggal si nga takk masque un pèlerin un masque takkal sa masque aar sa bopp waaye itam aar sa askan noonu la ñu ko tuddee. ci masque mën naa ne mat na ñeenti junniy masque ak lu tegal ndax li ñu njëkk a distribué rek mat na ñaari junni te actuellement ñoo ngi ak ñaari junni yoo xam ne tegal na juróom-ñetti téeméer ak juróom fukk yoo xam ne dañ ko war a distribué mooy lii mooy masque yi nga xam ne original la jógee ci honorable député Abdoulaye Seck Sadaga yii mooy yi nga xam ne ñoom soxna barakatu ñoom ñoo ñoo ko ñawal seen bopp muy lim bu takku ngir jàppe ko ci li nga xam ne nii mooy liggéey bi ci wàllu masque yi bokk lool ci lu nu fësal moom Pape Seck ak soxna barakatu di fàttali askan wi ne ndigalu Serigne Touba mooy takk masque yi ñu wax ci li nga xamne mo waral suñu téway fi ndax comme señ bi dafa wax ne pour ñu tak masque yi te magal si motax ñun ñu défon suñu programme rek pour liggéey ci yenn lenn ci masque yi rek mu ñu and ko ak Cheikh Abdou Lahad Sadaga mu jappalé ñu ci lool bi señ bi waxé loolu mu proposé ñu ci loolu ñu daal ci and ak mom d'accord ci lool wax deug yalla mu wax ne comme pour ñu défar masque yi ñu ne ko lool mom dinañ ci japp ak suñ lay katan ñu and ko ak suñu éléments yi suñu ñi ñun ñepp ci atelier bi ci lañ nekk ñu liggéey masque yi comme bi ñu tak ni ñu défar ko ci anam bu sel tamit waaw ndax ñun ñoko ko liggéey défar ko. ñu ñëwé fi dañoo séddale séddale nañ liñ jotoon andi ba nopp. mu tombé jamono ji fi ci dëkk bu sel bi di Touba jafe-jafe ndox tar fi